waaye di ñaan sunu borom subhanahu tabaraka wa taala mu yokk yërmandeem ak ak njéggalam ci sunu biir mu mel nag dañuy del siwaat rek sunu jotaay ak yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttalikonte mu mel ni dañuy ñëwaat nag ci sunu bind bi ñu mujjee jël muy bind bi nga xam te ni doon jàngale lan mooy sunna ci njàpp lan mooy sunnaay njàpp kon ginnaaw jàngale na farata yi jàngale sunna yi njàpp yi kon dafay jàngale lan mooy ngëneelu jàpp moo tax mu ne faslun lii ab bunt la fil fadaa ili ca ngëneel ya amma fadaa ilun ndaal ngëneeli jàpp lahu ñeel na ko fal mooy wax bismillah wa baxdaha ca ginnaaw ba asiwaaku socc naa i na nga sori almaasiya moyya wa xudda ak ngay xaslatan ak raxas atat goog dikk ziyaada di ak ndollit xalaa uwla ca bu njëkk ba fadilatal xibaada yadi ngëneelum jaamu ya xanaytu jublu naa fil wajhi ci xar kanam ga wa fil yadayni ak ñaari loxo ya wa hakaza nekk nii at tartiibu mooy tale ga duunal may ni ci ludul nar wal badu ak tàmbali bil muxaddami ci njëlbeenu bopp ba al muxtaadi badi bu ñu baaxoo fii masxi rahsika ci masa bopp ba bil ixtisaadi cig jublu mu nekkat bokk na ci ngëneel yi jàpp bam ca njëkk a lim mooy nga wax bismillah kon booy tàmbali sam njàpp nga wax bismillah loolu bokk na ci ngëneel ya mu ne waaye nag ginnaaw ngay tàmbali njàpp de am na lu ñuy wax soccu maanaam nga wut bant maanaam socc rek daal di socc lu njëkk ngay tàmbali jàpp loolu mooy li waaye teewut tamit boo demee ba nekk ci biir jàpp li booy galax jël sa loxo dugal ko ci sa biir gémmiñ bomb ko ba teyit loolu baax na mu ne ba tey tamit bokk na ci ngëneeli njàpp ya raxas bu dul raxas bu njëkk ba xam nga dañ la wax ne da raxas sa loxo ñetti yoon ñetteel yoon yooyu nag bu njëkk ba bu dee dafa matale nga xam ne raxas nga raxas bu njëkk mu tooy fépp tooy matale kon loolu rek mooy farata ja kon raxas ya ca toppaat mooy bu ñaareel ba ak bu ñetteel ba ay ngëneelu njàpp la ginnaaw boo xamee ne kon raxas bu na rek ya ca topp ay ngëneel la mu ne nag bokk na ci ngëneeli njàpp ba tey toftale gi ngay toftale farata ya nga xam ne boo defee xar kanam teg ci sa ñaari loxo toftale googu nga koy toftale benn boo def teg ca ba ca war a topp ba mu jeex loolu it bokk na ci ngëneelu njàpp ak tàmbali gi ngay tàmbali masaa sa bopp xam nga masaa sa bopp moom yaa ngi tàmbalee ci sa karaw fa mu saxee ci jëba dem ba ci ndong la daal di koy indiwaat ba ci jëbi kon loolu mooy masaa bopp def googu nga koy def di ko tàmbalee fa mu baaxoo tàmbalee moo tax mu ne al muxtaaji mooy fa mu baaxoo tàmbalee xam nga ku nekk xam na ne mi ngi baaxoo tàmbalee ci jëbi jëm ci ndong la ñëwaat ci jëbi loolu mooy masa kon def googu nga koy def nga xam ne tey bu fekkoon da ngaa jiital sa loxo dem ba ca maanaam jël sa ñaari loxo rek ñëw rek tàmbalee ko ca ndong la ñëw ba ci jëbi delluwaat ci ndong la du tee dina baax du tee dina baax waaye nag nañ ko baaxoo defee boo ko defee noonu bokk na ci ngëneelu jàppale mu ne bokk na ci ngëneelu kon mu yeggale mu ne ma wa xillatul maa i ak néewal ndox ma alal xodd wi ca cër ba kasa niki ni taqdiimu yum naaka jiital ndeyjoor alal yusra ca càmmoñ ba xusa jàppal wa xalilan ak ngay xalil asaabi'a yaday ni baaraami loxo ya xatman ci lu war wa yustahab def na sopp fir rijlayni ci ñaari tànk ya mu ne tamit bokk na ci ngëneeli njàpp yi ngay néewal ndox mi ci cër yi maanaam booy raxas say cër bul jël ndox mi rek sotti ci loxo bi wala nga jël ndox mi rek di sotti sa loxo ba fees di sëlmu rek déedéet na ngay néewal ndox mi ci cër ba ngay raxas maanaam na ngay jël ndox mu méngoo ak la ngay raxas kon loolu lim ciy bañ mooy ngay yàq ndox mi kon yàq baaxul waaye nag nit ku nekk moo xam cër ba muy raxas na mel bu dee say loxo dafa taq kon boobaa faw di nga raxas raxas yu dëgër ngir loxo yi mën a set bu dee sa loxo dafa set nag nga tàngalu yam nga xam ne da ngay raxas rek mu yam ca la tilim kon loolu lu a bàyyi xel la moo tax mu ne néewal ndox mi kon ca cër ya bokk na ci ngëneeli njàpp ya bokk na ci ngëneel yi kon ba tey jiital ndeyjoor teg ci càmmoñ booy raxas na ngay jiital ndeyjoor teg ci tam càmmoñ kon loolu ngëneel la ci njàpp ndax boo jiitaloon càmmoñ ba teg ci ndeyjoor ba tamit teewul ndamaax waaye nag jiital gi ngay jiital ndeyjoor teg ci càmmoñ ba ngëneel la ci biir njàpp waaye nag lépp looy def rek bu dee dafa am ndeyjoor ak càmmoñ fexeel ba jiital nday joor ba doo di ko teg càmmoñ ba loolu lu am solo la ak xalil sa baaraami loxo ya ndax xalil gi ngay xalil baaraami loxo ya ak sa ñaari tànk yi boo koy raxas xalil gi nga koy rax nga xam ne diggante baaraam yi mais loolu tamit ci ngëneel la waxoon nañ la la ca ca ba ngay jàng te saw wadu ne la xalil baaraami loxo yi bokkoon na ci faratay njàpp waaye nag ñu bari dañ koy def lu war war nag mooy loo war la nga def ko nga xam ne du yegg ci farata maa bu ñëwee lu war la du yegg ci farata nga xam ne boo ko defut njàppal day yàqu déedéet waaye mën nga cee am bàkkaar kon war gi ko ak farata waaye loolu nag am na ñoo xam ne ñu ko def muy warugar nga xam ne da ngaa war a xalil say baaraam defan ko muy farata fële ci tasawul sixaar moo tax mu ne na nga xalil baaraami loxo ya dañuy sopp nag bu dee ci tànk ya dañuy sopp rek nga xalil baaraami tànk yi benn par benn su ko defee fépp mën a tooy kon bu dee ci loxo yi dañ koy ngëneel lay doon waaye nag bu dee ci tànk yi dañ koy sopp rek waaw dañ koy sopp mu ne wa aw jabu waral nañu at taxliila xalil ga fil xafiifa ca oyof ga aydan ba tey mu minal lexyati ca sikin ba lal kasifa waxuma bu fatt ba anaytu jublu naa ca fil wudu ci njàpp la amal xuslu ndaal càng la nag yuju dana war fa fii maa ñoom ñaar fii maaca langa la xam te ni yejju luwu dana ko leeral wala yejju dana leer mu tamit waral nañ tamit kon ba tey ci xalil baaraam mi ci xalil sikkin ba bu dee nit ki dafa am sikkin boo xam dafa sëq xam ne nit kii kat sikkinam sëq na ba nga xamante ni sëqaay xaw naa fatt mu ne kooku moom bu dee sikkin bi moom booy raxas du jar muy jël ndox mi di fexe ba mu yegg ci biir sikkin bi déedéet buy raxas day raxas ci kaw sikkin ba rek mu daal di baax waaye bu dee koo xam te ni nag sikkin ba fattul nga xam ne sikkin bu yam la yore nga xam ne mi ngi gis deru deru sikkin bi nga xam ne bu jëlee ndox soq sotti ci rek bu ko yëngalee rek mu tooy kooku nag dañuy war day war day day ngëneel la ci moom maanaam mu sotti ci ndox tooyal ko mu yegg ci der ba maanaam loolu mooy ñi yor sikkin bu ndaw boo xam ne daanaka solo sa bariwul lool waaye bu dee ko yor sikkin boo xam te ni nekk dafa fàtt boobaa day masaa ci kaw rek baay mu ne nag bu dee ci njàpp moo tax ñu lay wax loolu bu dee ci njàpp waaye nag bu dee ci lu mel ni sangu farata waaw mooy sangu set bu dee lu mel ni sangu farata nag dañuy aayowoo ci moom mu firi karaw gépp moo xam karawu bopp la moo xam karawu sikkin la dañuy bëgg ndox ma yegg ca mu raxas ko bu baax ba ndox ma laar deru bopp ba hmm, ndax bu dee ci njàpp loolu lañ cay soob nga ne la nga def ko waaye rek bu dee sangu farata nag farata lay doon ndax faaw foofu tooy bu doon góor bu léttoo dafa war a firi ya bu dee jigéen bu léttee bu léttoo dafa war a firi létt ya fexe man ndox ma dugg ci bopp ba kon bu dee sangu farata moom loolu farata lay doon kon yooyu mooy ngëneelu njàpp ba ca njëkk mooy wax bismillah ñaareel ba mooy soccu njëkk ngay jàpp ñetteel ba mooy raxas gi ngay raxas te bokkut ak raxas bu njëkk ba ñeenteel ba mooy toftale ga juróomeel ba mooy néewal ndox ma juróom benneel ba mooy jiital ndeyjoor teg ci càmmoñ juróom ñaareel ba mooy xalil lox baaraami loxo ya ak xalil baaraami tànk ya yooyu moom ndax bokku ci bokku ci nga neel ngay konte ak xalil sikkin ba bu dee sikkin bu fatt la kon yooyu mooy sun mooy yooyu mooy ngëneelu jàpp kon loolu lu am solo la ndax ngëneel yi kat luy mottali njàpp la maanaam luy rafetal ab luy am ab taar ci njàpp la kon foofu la ngëneel jàpp yi yem kon incha allahu rabbi dañuy teg foofu suñu loxo rek yem foofu ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp waaye di ñaanal mbokk jullit yi nga xam te ne dañuy teewlu jotaay bi yëpp ci biir réew mi ak ña nekk ci bitim réew di ñaan suñu boom ñu ñu yërmande dolli ñu jéggal ci barkeb na Ahmadul Xadim kon ñu leen di jox dig daje ci beneen jotaay ci kàttanu yàlla ak man-manam wasalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu